salut les amis ziar naa leen bu baax a baax dal leen ak jàmm ci seen podcast Wolof Tech bi leen di jox lépp lu jëm ci wàllum informatique ak nouvelle technologie maanaam xarala yu bees yi ci kàllaama wolof alors tey nag ñoo ngi àndaat ak yéen ci beneen épisode bu bees bi nga xamante ni moom la ñuy def chaque mercredi di ci dalal ay sénégalais yoo xamante ni dañuy innover saa su nekk di créer ay jumtukaay yu am solo jaarale ko ci xarala yu bees yi alors tey nag dañuy waxtaan ci benn application mobile bu am solo ñu koy wax jàng application la boo xamante ni man mii di wax sax dama koy utiliser bu baax a baax dama koy utiliser lu bëri parce que daf may dimbale bu baax ci podcast bi nga xamante ni dama koy def en alors tey Sénégal bëri na trop trop ñi nga xamante ni dañuy wax olof pratiquement ñu bëri li ci gën a bëri ci Sénégal olof lañu wax mais ñi nga xamante ni ñooy wax olof dëgg dëgg dëgg franchement bëriwul loolu moom mën nañ ko seede. da ngay gis ku mel ni man di wax wolof dugal ci français anglais des fois dugal ci arab ba sax à fin mbir bi day jaxasoo complètement voilà donc alors pour gën a suqali nag langue kàllaama wolof boobu nag mu pour que mu bañ a disparaître moo tax euh, ñi nga xamante ni ñoom laa invité mooy sama ñaari invité yi ñu créer benn application bu ñu woowee jàng wolof donc ñi ma invité nag mooy Bachir Sarr ak Moustapha Ndiaye. ñoom nag ñu ngi bokk ci benn kuréel bu mag lañ bokk donc ñoom nag ñoo fi teewal kuréel bi yëpp ñoom ñoo leen représenté tu vois euh, Moustapha ziar nañ la. ñoo ngi lay delloo ziar bu baax a baax Ibrahima di rafetlu initiative bi nag di ko rafetlu bu baax a baax tey tey nuyu képp ko ànd ak yow ci podcast bi rek di ko nuyu. macha merci beaucoup alors Bachir Sarr ziar nañu la bu baax a baax. waaw ñoo ngi leen di delloo ziar di leen nuyu di leen jaajëfal ci seen xalaat bu rafet bi di nuyu it mboolem ñi ñi diglu ci lënd gi di leen wax le dala daleen jam ci seen podcast bi eh, ak Ibrahima Tech ci wolof teg di wolof xarale di jaajëfal mboolem ñi rek ñi nga xamante ñi ngi si ginnaaw di ñu diglu ak sunu ñi nga xam ne ñooy suñuy jëwriñ ci mbootaay gi jiite ñu di nuyu nuyuwaale sama naataango si Moustapha ak eh, ñëpp rek di leen ziare bu baax. macha allah alors tey nag je pense que auditeurs yi ak ñi ñuy déglu yëpp. dinañ dégg wolof dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg parce que benn séeréer la fi nekk ak Moustapha lan la Moustapha séeréer nga. moom wolof la. <laughs> ah kon Bachir moo yàq affaire yi. xam <laughs> nga saar gi saar fi mu ne dañ may jiñ wolof bi damay ji dañ may jiñ séeréer gi dañ may jiñ séeréer gi. te xam naa sa ah, dañ la koy jiñ mais nekkoo séeréer. non du ma séeréer nag dama doon nopp rek te dama da ngaa yomb a <laughs> mais je pense que tey nag incha allah Euh, dinañ dégg wolof dëgg dëgg dëgg parce que euh, nekk na nit ñoo xamante ni euh, li ñuy def ci langue wolof ci kàllaama wolof bi am na solo trop parce que dañ koy wax naturellement wolof dëgg dëgg dëgg bi parce que loolu moom seetlu naa ko ci conversation yi nga xamante ni jot naa ko am ak ñoom mais nag man aussi je pense que maa ngi góorgóorlu bu baax parce que temps yi bu ma xoolee fi ma jógee woon ak tey jii nii je pense que maa ngi góorgóorlu ndànk-ndànk voilà yenn saa yi <laughs> rek dem directement ci sunu épisode tey bi maanaam apprendre la langue wolof facilement avec une alors comme ni ma koy waxee saa su nekk wolof dafa nekk benn kàllaama boo xamante ni kàllaama bu riche la alors jamono ji ñu toll nii nag. Euh, toll nañ ci foo xamante ni suñu ay wax dañ koy jaxase ak yeneen kàllaama yu bëri lu ci mel ni français anglais ak yeneen ak yeneen alors je pense que nag suñu continuer nii euh, dina jafe trop ci at yi di ñëw wala dans le futur euh, suñu doom yi ak suñu sët yi mën a comprendre ba léegi wolof dëgg dëgg dëgg dëgg bi alors loolu moo tax nag kuréel bii nii nga xamante ni ñoom lañ invité tey ñu créer application bi nga xamante ni moom la ñuy wax jàng wolof alors avant sax ñu dugg ci waxtaanu application bi euh, su ma comprendre bu baax euh, benn kuréel bu mag ngeen yor euh, Moustapha ak Bachir donc bëggoon naa xam exactement seen kuréel boobu noonu ci lan la yëngu ak lan moo nekk ay objectif am avant sax ñu dugg ci biir application bi nga xamante ni defar ngeen ko te mu tudd Jàng Wolof. waaw ni ki ni ma leen nuyoo sànq rek di leen jaajëfal ci dalal gi am nañ mbégte lool toog fii tey waxtaan ak yéen. ci mbootaay gi nga xamante ne ni ci lañu nekk di ci liggéey guddeeg bëccëg muy wax di wolof ak xamle nga xamante ne ni Kipango euh, la maanaam groupe la boo xamante ne dañ ko def ngir jàngale wolof mhm. euh, moom nag ñu ngi ko sos ci jamonoy fukki fani avril euh, février ci atum deux mille dix huit maanaam dix février lañ ko créé lañ ko sos ñu ko sos nag di njaatigeel yi suñ ceexlu nga xamante ne mooy président bi di njaatige mhm. Mhm. ak sëñ bëgg Bamba Guèye ak kuñ naan sëñ Ismaïla Guèye ñoom it ñu ngi leen di nuyu baax ñu leen jaajëfal ñu ngi ñuy teewlu. amit nag euh, ginnaaw loolu euh, mu am ay jëriñ gox yoo xamante ne ñoo ñu teewal ci Sénégal moo xam Dakar Touba Thiès kawalax Louga ak ba ca Fuuta. mbootaay mhm. gi nag li ko tax a jóg mooy suqali làkk wolof ci bind ak ci wax ni ki ni nga ko leeralee ci say kàddu yi jiitu. nga mhm. xamante ne ni eh, ñu bëree bëri jàpp nañ ñi ngi wax wolof fekk ne mhm. boo xoolee ci biir en réalité waxuñu wolof ndax léeg-léeg dañ koy wax booy. nangam ak yooyu léegi nag këppaangoo gi looloo ko tax a jóg ngir defaraat làkk wi ci bind ak ci jëfin ndax làkk yi nii ki niñ ko xamee làkk wu ne am na bindinu boppam di orthographe ba ci sax niñ ko xamee ci réew mi ci ci càmm gi état bi codifié na làkk wi e, ci décret numéro deux mille cinq neuf cent quatre-vingt-douze du vingt et octobre deux mille quinze deux mille cinq nga xamante ne ni day lootaa bi day organiser day jëmmalaat mi nga xamante noonu la ñu war a binde làkk wi wolof nga xamante du nekku rek nu la neex nga koy binde waaye dafa am ay normes yoo war a respecté boobu koy bind képpaango looloo tax mu jóg ngir dimbali gi dimbali càmm gi ci loolu te di ci jàngal nit moom nag li muy def def ngir yàlla fayu ci defu ci dara day jàngale di bind ak uh, suqali làkk ci gépp fànn dafaa ci tënk loolu la macha allah alors je pense que euh, yaakaar naa ni euh, seen alors Kipangu Kipangu mooy euh, groupement wala groupe groupe muy groupe ah. groupe association groupe. Mm. voilà voilà donc tey moom ay jàng la quoi tey ñu ñëpp ay jàng quoi <laughs> alors je pense que tey kippaangu googu noonu tey am na solo trop parce que déjà comme li nga ko waxee rek seen objectif yi objectif bu noble la boo xamante ni euh, tey man ñi man mii di wax dama ciy gis sama bopp parce que li tax ma choisir day di def sama émission yi en wolof c'est pour permettre que nit ñi gën a comprendre li ñu wax parce que tey euh, boo xoolee tey Sénégal dañuy wax nañu jàng français bëriwul donc ñi nga xamante ni. ñoo ñoo jàngul français tu vois bëri nañu trop donc est-ce que dañ leen war a exclure ci xam-xam bi wala dañ leen ci war a boole donc dañ leen ci war a boole parce que ñoom aussi am nañ xalaat dañuy xalaat dañuy réfléchir tu te euh, war nañ mun a euh, acquérir xam-xam bi comme ni ma koy waxee rek ci français mooy que ne euh, langue warul nekk barrière pour nga mun a jot ci xam-xam tu vois langue warul mun nekk barrière tey boo demee Chine wala nga dem ci yenn pays dañuy jël xam-xam bi traduire ko ci seen langue dëkk pour que seen nit ñi mën ko jàng alors que donc donc suñu réew yu mel ni Sénégal ak yeneen ak yeneen foog ñu jëf effort pour mun a traduire xam bi ci langue bi nga xamante ni ñëpp dañ si mën a jot moo xam ki jàng ak ki jàngul donc tey effort boobu noonu euh, ñun la war te je pense que yéen ñi aussi yéen ciy def seen wàll bu baax baax a baax alors beneen laaj bi nga xamante ni bëggoon naa ko laaj mooy. Euh, Euh, naka ngeen def ba xalaat fan la xalaat bi dikkee c'est-à-dire ngeen xalaat defar application boo xamante ni da di dimbale nit ñi pour ñu gën a mën wolof bi. waaw lu aju ci làkk bi laata mooy dugg ci ñëfegaay gi di application bi. loolu kii bi moo ko jiitu. ñooñu moo xam ne ñoo sos ci bango di suñ Cheikh Lo suñ Bëgg Bamba ak suñ Ismaïla Guèye. dañoo bokkoon ci geneen mbootaay boo xamante ni ñoom it académie wolof lañu woon. ñoom it dañ doon jàngalee loolu. am nay ay jafe-jafe yu ci amoon ba euh, liggéey ba xawoon naa des daal ay jàmbaar lañ nag ñoo xamante ni ñu ngi woon ci kii bi léegi ñoom ba ñu fa jógee nag ci la ñu xoolaat xalaataat gën a jëmmalaan mbir mi euh, ndax ñoom niñ doon ñoom seen gisin association bu njëkk ba ak suñu gisin xaw nañoo wuute ndax ñun dañ cee boole lépp léegi nag xalaat bi ci ñoom la jógee ñu daal di koy tàmbali sos ko nag biñ ko defee nag ñoo tàmbali koo def ci ci lënd gi ci internet bi whatsapp bi di jàngal ku bëgg a jàng Walf ñu joxe seen limadi seen numéro ci fépp ci Facebook ci Twitter ci WhatsApp ku bëgg rek da leen di soo leen woowee doo fay dara dañ lay jàngal ci ñetti weer nga daal mën a bind mën a wax wolof set wi ci nga xamante ne nii doo doo demal sax bay naan mooy kane xam nga loolu du doolaf mooy kane da nga mooy ne su ko defee nag nga jàng soo demee ba kiilu ba matal nag mm-hmm. soo demee ba matal nag nga daal di su la neexee nga bokk ci mbootaay di liggéeyal weer loolu moo nekkoon ci sart yi soo ñëwee di jàng doo fay dara waaye suñ la jàngalee ba nga man weer la ñuy sasoo ak yow weer wi moom dangay toog nga liggéeyal ko soo liggéeyal ki pango weer nag soo noppee nga daal di nga daal nga daal di dem ci noonu lay doxee nit dox ba nekk ki pango gu mag a mag bu rëy ba nga xam ne na ci euh, ñeenti junni nit ci lim bi ma mujj jàpp waaye ëpp na ndax bis bu nekk ay bis ju ci nekk dañoom benn benn kipango ci whatsapp maanaam groupe whatsapp boo xamante ne ni fa la ñuy dalalee gan yi nga xam képp koo xam ne da nga maa woo ci Twitter ne ma damaa bëgg a jàng numéro whatsapp boobu laa jox nga dugg fa su fekkee Facebook su fekkee noonu la groupe boobu nga ne nii chaque ayu bis daanaka day fees chaque ayu bis day am ñu ñëw maanaam une semaine bi day am deux cent cinquante sept personnes day ñëw nga xamante ne ñooñu chaque chaque mois bi dañ dañ leen di jàngal moo tax day yokk bi ma mujj jàpp nag ñu ñëw ci deux mille quatre mille personnes xam na nag jamono ji weesu na soo jàngee nag ba noppi nag ñetti étape ngay jàng jàngu benn jàngu ñaar jàngu ñett jàngu benn day nekk weer jàngu ñaar nekk weer jàngu benn bu ci nekk day am carte maanaam examen day am soo ko jàllee soo ko jàll ci beneen kii boo jàllee ci ñetteelu nag jàngu ñett bi di étape trois bi soo kiilo muy réussite nga admet su boobaa nag ñu ne yow noppi nga nga daal di mën a am sa kii nga daal di ba nga daal di noppi soo neexee nag nga daal di bindu ci mbootaay gi dagg sa kayitu jëm kayitu jëm mooy kayitu cër mooy carte membre nekk ci mbootaay gi di liggéey dem na nag ay xalaat yu bëree bëri di ñëw nag ndax lépp làkk dafa yaatu dafa am ginnaaw lu ne ngi ci mhm. Mhm. dem nañ ba am ci nag lu naan saabal mooy saabal boo demee ci internet soo bindee saabal point tombu com point comme da nga koy gis ñoom it ay xibaar képp la ñuy def ci biir mbootaay gi lañ nekk saa su nekk dañuy bind xibaar xibaar yi ngay dégg yëpp ci àdduna bi ci réew mi ci tàggat yaram ci ci wérgi yaram ci politique ci lépp mi ngi fi saaso ne dañ koy dugal day am audio day am bind yëpp ci wolof lañ koy du am benn baat français bu ca nekk wala baatu tubaab bu ca nekk wala arab bu nekk te ñooñu ñu ngi ci biir mbootaay gi di di liggéey mbootaay gi nag am na ci xët yëpp maanaam ci lënd yëpp am na fa xët moo xam Facebook am na am na wax wala xamle boo demee Twitter am na fa boo demee ci WhatsApp am na fa boo demee ci YouTube am na fa boo demee ci Instagram am na ci nekk am na lépp rek ngir dina mën a yaatal kii kon daal mébi xalaat bi xalaat bu ndaw lool waaye nag ak mboot mbooloo mi ni ñuy ñëwee muy gën di yokku gaañe di gën a am positif ndax su ma ci bëggee bokk jàng ba noppi nekk di ci liggéey ma am sama xalaatu bopp boo xam ne su ma ko ci waxee xëy na dina gën a yaatal mbir mi ñu daal de ko ciy def moo tax mbir mi dem ba yaatoo yaatu ba rëy ba nga xamante ni foo nekk ci réew ci lënd gi yaa ngi koy yaa koy dégg. Hmm. ok ok ah, am na solo donc donc ci noonu ah, ngeen xalaatee nag jël mbir mi après def ko benn application mobile quoi. waaw léegi nag ci lu aju ci njëfegaay gi nag ndax jàngale bi boo seetloo day xaw a métti man damay jàngale euh, euh, nit ki damay jël fukki nit wala fanweeri nit maa leen di jàngal ku ci nekk dama la yónnee bind maanaam leçon bi tey dama la ko yónnee soo defee leçon ba pare dama la yónnee tàggatu di exercice nga def ko ma corriger la beq la jàngal la examen yu suñu xam nga yooyu day ba suñu biir ñu ne nañ xalaat waaw am nay xarala ñu ci nekk léegi suñu mosuwaay mi ma àndal day ci waxtaan wi mm-hmm. ne ñoom ay waay xaral lañ seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllum euh, xam-xam yu yees yi xarala yi mm-hmm. ñu ne nag mm-hmm. lan moo tax mën noo def sax njafegaay di application boo boo xamante na ni sëñ Ibrahima fa mu nekk mën naa toog jàngal boppam wolof te du sonal kenn du laaj kenn ku may jàngal du du du sonal kenn du sonal boppam nga xam ne koy wàcce ci jollu som rek commencé tàmbali di ci di ci liggéey ñu daal ci ci liggéey woo suñu Moussa nga xam ne ñu ngi ko ci jaajëf bu baax nga kenn la ci moom mhm. ci biir mbootaay te fay ñu ci mhm. dara mu liggéey ko liggéey bu am solo boo moom sax dina ci ñëw dañ ci indi yeneen i leeral ci xam nga moom xarala la man duma euh, sama xam-xam <laughs> jëmul ci yooyu <laughs> non <laughs> dina ñëw ci moom dina ñëw ci moom gën leen a waaw ah, gën leen a yaatal bi ci biir euh, njëfegaay googu yi ci nekk ak ñu jaar ak yooyu mhm. waaye hmm. eh, lu am solo bu ko defee nag su hmm. boobaa man ni ma nekkoon di jàngale juróom benn fanweeri nit ma leen di jàngal bis bu nekk nga xam ne damay xat di di hmm. may du ma leen jàngal léeg-léeg ma kii su boobaa yooyu yëpp nag day coono yu day wàññeeku su ko defee ñu daal di mën a jëm ci yeneen i xalaat yoo xam ne day gën a jëmal làkk loolu daal xalaat bi foofu lu dikkee ci la suñu soom yi daal di góorgóorlu daal di koy daal di defar njëfikaay moom mi moo ko defar ok moom ci a indi ay ci moom la ñuy jëm nii sax ci moom la jëm nii nii nii nii Moustapha <laughs> gis nañ ne application bi euh, defar ngeen ko comme ni ma ko waxee ci début bi man mii dama koy utiliser dama koy jëfandikoo bu baax te euh, gis naa ni am na solo trop trop te daf muy dimbali bu baax wax dëgg yàlla daf may dimbali euh, application bi. dafa extraordinaire man franchement dama gis ne c'est extraordinaire te ni ñu ko organisé baax na alors sëñ Moustapha mën nga ñu wax exactement naka ngeen organiser euh, cours yi nga xamante ni moom moo nekk ci biir application bi ak yan fonctionnalité moo nekk euh, lañ mën a fekk aussi ci biir application bi. Mm-hmm. waaw xam nga euh, application yi ba léegi boo dee xool jëfekaay bi ci boppam. Um, xam nga um, mënees naa wax ne um, phase bi mu nekk ba léegi phase su développement la ndax am na lu bëree bëree bëree bëri loo xam ne nii mënees na ko cee dolli. Mm-hmm. waaye boo dee xool fi mu uh, fi mu toll nii maanaam li ko li ko tax a jug maanaam li nga xam ne nii moo ko tax a jug ci boppam uh, donte am na yeneen yu ci yokk te am na incha allah dana am yeneen yu ci ñëw waaye mooy uh, jàppale jàngalekat yi comme ni ko sëñ Bass doon waxee. ndax xëy na jàngale metti na te it am na loo xam ne boo ko Euh, boo fexee mu euh, gannaaw ay machine ganaaw machine yi lool euh, loolu mooy seen njariñ ñu xalaatoon ne daal wax dëgg fa yàlla maanaam am na mëneesoon na koo liggéey noo xam ne nii dana leen maam dana jàppale ñi nga xam ne ñoo ci ne. li nga lépp loo xam nii daal ki daan jàngale da ko na ko def lu mel ni jox bind maam nga yorob ndongo daal di koy jox bind. léegi fi mu ne nii boo wàccee jëfekaay bi sa ci sa jollosu sa téléphone di nga mën a euh, di nga mën a dugg daal di gis ay bind maanaam am na ay jàngu euh, léegi chapitre bu ne boo duggee am na ay bind léegi bind bu ne boo duggee di nga gis euh, jëmmi leçon bi ci boppam nga xam ne dalay leeral lu mel ni nos wax maanaam base làkk bi bokk maanaam lu mel ni nos wax grammaire wala mu leeral ay yu mel ni tomb yi tamit fan nga koy jëfandikoo. ak ak um, seeni tur ci wolof. boo noppee it um, maam boo duggee ci foofu nga xam ne fa ngay uh, fa ngay jëlee leçon yi dana am uh, ab dawal maanaam nga xam ne um, lu mel ni ab lecture la maanaam nga xam ne mhm. uh, day am ab ndéggat day am benn mhm. vocal ak mhm. ak texte nga xam ne yow di nga mën a xool texte bi vocal bi di dox ngay ngay mën a lire di dégluwaale. day mën a lire ngay mën a lire di dégluwaate waaw nga xam ne loolu dina la dimbali nga baat bu ne boo ko dee lire di nga xam lii naka la nan lañ koy bindee ak nan lañ koy waxee boo boo jàllee ci boo noppee it di nga gis ne leçon bu ne am na ay tàggatu am na ay waaw am na ay tàggatu am na ay exercice des exercice yooyu am na ay façon it am na ay fitee ngi ci maanaam ay ay dictée Euh, am na it ay euh, ñu jox la ay choix nga na maam euh, bëri nañ façon daal te xëy na incha allah tamit yooyu mm-hmm. waaw yooyu dina yokk bu baax a baax donte it jàng moo ko tax a jóg mm-hmm. maanaam mbir muy avancé la comme li ma wax sànq mm-hmm. ci phase développement la toll ba léegi te boo dee xool am na waaw kay te boo dee xool fi mu ne nii xëy na néew ma ne amul waaye lu mel ni ab calendrier maanaam lu mel ni ab arminate ki Arminat boo xam ne bëggoon naa si ñëw léegi parce que maa ngi nii sax tiim application bi di gis ni Arminat xaw ma woon luy Arminat mais boo cliquer ci biir Arminat dangay gis ne da ngay gis benn calendrier. Mhm, mhm. te xam nga maanaam dëkk bu mel ni Sénégal nga xam ne ah, bëri nay événement yoo xam ne ak ak yuy xew yoo xam ne ci maam ci weeru wolof lañ koy teg. Mhm. Ah, la ñuy sukkandiku. xam nga xëy na jaadu na daal ñu am loo xam ne nii ab système boo xam ne dañuy won fan la ñu toll ci weer bi maanaam donte ñu bëree bëri dañ ko téye seen i xel waaye dañoo toll ci jamono joo xam ne lu bëri dañ koy bind euh, ndax xëy na génération bu bees bi am na yoo xam ne duñ ko jàpp <laughs> léegi nag li leen gën a jàpp li leen a dimbali mooy nga am représentation visuelle boo xam ne comme lu mel ni ab calendrier ni nga ko tàmmee gis ci yeneen i euh, ci ci yeneen dëkk yeneen culture yi ñu ne ñu am lu mel noonu euh, nga xam ne daal yooyu moo nekk pour l'instant daal yooyu moo nekk fonctionnalité yi nga xam ne. Mm, moo ci gën a am solo ko waaw. parce que tey bu ma xoolee arminaat bi nii maa ngi gis na ñu ngi bind diggu tabaski 1442. vingt 27. donc loolu mooy datu tey bi. loolu mooy datu tey bi waaw. macha allah macha allah te tey c'est sûr que tey ku mu ku mu interroger woon ni ma ne ma waxal datu tey bi ci wolof duma ko mën a wax quoi. <laughs> waaw am na am na am na solo bu baax a baax te gis nañ ci ay euh, fonctionnalités yu bëri yoo xamante ni euh, xam naa ci kanam tuuti sax dinañ waxal ci yeneen euh, affaire yoo xamante ni peut-être war na ci nekk wala mu ngi ci déjà sax ci biir ba pare li ci gën a am solo mooy daal. am na euh, ay ay ay ay cours cest à ay ay cest à da ngay dugg gis njàng mi gis baataan baataan mooy grammaire wala. vocabulaire. baataan mooy vocabulaire. <laughs> voilà am na arminaat am na aussi dal donc yooyu yëpp ay munu la yoo xamante ni boo ci dugg rek da ngay fekk foofu noonu. ay cours yu bëri cest à nga fi fekk ay jàngu 1 jàngu 2 jàngu 3 boo demee aussi ci euh, ci baataan bi aussi euh, foofu di nga fa fekk euh, lu ci mel ni benn dictionnaire moom tamit gis naa ko ci tu vois c'est-à-dire da ngay bind wolof je pense que mu traduire la ko en français tu vois wala nga bind français mu traduire la ko en wolof. voilà donc boobu aussi gis naa ko ci alors de toute façon li ma ci gis yëpp daal ay ay ay ay li ci gën a am importance man pour man sama jëm bopp mooy fi ngay gisee traduction yenn mooy yi ak aussi ni mu lay jàngalee cours yi benn par benn ngay mën a déglu voix bi di déglu texte bi en même temps di gis texte bi en même temps alors ci noonu lay demee ci benn question boo xamante ni bëgg naa ko laaj Bachir c'est-à-dire euh, euh c'est-à-dire naka ngeen def euh, ba xam mots yi li ñuy tekki exactement est-ce que da am benn spécialiste français boo xamante ni wolof la moom mooy liggéey ak yéen wala euh, wala da am ay seen ay sunu ay mambo yu ngeen nekkal ñu leen wax affaire yi wala mu demee noonu quoi man franchement <laughs> jaaxal na ma fan ngeen di jëlee mooy quoi voilà parce que man bi ma njëkkee dégg ñu ne téléphone mooy jolosu dama ne waaw loolu ko décidé fan bind wala dafa amoon ay livre yu yàgg yu ñu fi bindoon bàyyi ko fii wala la demee exactement. waaw kay sëñ Ibrahima. Euh, mhm. xam naa sa Moustapha leeral lu am solo muy njëfekaay gi moom euh, ak Baye Cheikh la moom sama kilifa sama jëriñ la suñu xarale la waaye njëfekaay gi maanaam njariñ yi ci nekk yëpp yëpp yëpp boo ko doon wax maanaam doo fi jóge tey yow xam nga ci ah. dara moo tax ngay jóg di yee Sénégalais yi di leen mhm. euh, jëmbale ci wàllum xarala yu yees yi lu ay njëfekaay application yooyu mhm. dañoo demoon ba ci jàng wala dañoo demoon ba ci ay jamono leer naa sama biir wax ne fi ñuy dalalee gan ñi nga xam ne dañoo bëgg a jàng sa une semaine ju ci nekk ci pango gi day fees dañoo mujj ñi ñëw ne dañuy bëgg a jàng wolof tuñ leen mënatu mënatuñ leen a téye da gis lu ma téeméeri nit téeméeri taxaw saa su nekk ñu la man de ba ma la waxee jàng ba léegi waxugoo ma dara ba ma la waxee weer a ngi nii wax naa la man tàmbalee ma ñii di kaas yi ñii di wax ñu mujjoon nag mënatuñ leen téye ñu ne faw nag ñu am loo xamante ne fa la ñu dalal nga xam ku ñëw rek dalay mën a attan mhm. su su un million su tam deretu nit ñëwoon un million yi nit ñëwoon tey foofu mën nañ faa mën nañ faa daal ñu jàng te am benn jafe ci lañ xalaat boobu foofu la jógee nag ñu ne nañ defal njëfekaay gi nga xam ne njëfekaay gi day taxaw taxawaay sëñ daara man ni ma nekk sëñ daara di jàng fi mu ne njëfekaay gi application damay dimbali ci loolu te boo xoolee ci biir njëfekaay yu bëree bëri wax na ko ci mooy jàng bind bi ma la daan yónnee di la ko leeral léegi du ma ko def moom njëfekaay gi la koy defal moo la jox bind tay bi ba pare wax la ni ñu la koy defee soo jàngee bind ba noppi mu def tàggatu ndax tàggatu mooy dëgëral moo koy dëgërël soo noppee am na arminaat bi sama calendrier bi yooyu yëpp am na ci am na tamit baataan di vocabulaire am na ci biir ah, am na su ci def suñ su ci suñ noppee tamit daañu ci def kàggu maanaam bibliothèque nga xamante ne ni téere yu ko gaañu ba mamaak ñeeg wolof yi yëpp ay léebu léebu wolof de waaw waaw waaw mbaam akimoo mboolem hmm. téere wolof yi nga xamante ne bind nañ ko yëpp dañ ko fi dugal day am day am bibliothèque ci biir hmm. maanaam bàyyeeguñu ni ko suñ Moussa waxee ci dafa nekk phase de développement mi ngi mi ngi soxaliku nii di jog waaye bu ñu nee ba noppi ci lépp loo soxla ci wolof moo xam way yi ñu way ci wolof Euh, ci noonu sax damay potoxluwaale man ma waxaale ci amoon nañu benn jëfekaay bu ñu njëkkoon benn dal moom mi suñu saa def naa moo ko defaroo nekk jàngu wolof moom boo fu duggee foofa amoon ay way yu bëree bëri yu ñu def ñoo xam ñoom Ngoyaan ñoom Youssou Ndour nga xam ne seen wolof yu ay way wolof yu pur lañ daan wax. Mhm. dañ leen di bind dugal leen dugal leen ci bind ndax léegi da déggee way doo xam way maanaam mooy lan. ma nga ay suñu Moussa Moussa Ka suñu yooyu yëpp ñu ngi loolu dafa ko doon ki dugalaale ci biir léegi ok dal boobu ngay wax noonu site boobu noonu. Euh, ki ce mhm. cee baax ndax euh, gannaaw xëy na euh, ñi nekk ci biir di di ci def di ci def seen ñàkk ak di ci volontaire du ñoo bëri. am na ku ñu naan ndaw suñu naan soxna Dior. Oh. moo ci nekkoon. Mhm. nekkoon ci jàmbaar lool daanaka ci moom la ci moom la loolu ci moom la tàmbalee. macha <laughs> lu ma bëggoon a lu ma bëggoon a la. macha allah ça moom c'est vrai ça moom loolu baax na trop quoi volontaires yi moom c'est très bien parce que xam nga kenn mënut a matal lépp donc ku nekk rek bu ñëwee indi xam-xamam indi dooleem donc bu nekkee ensemble après affaire bi je pense que day gën a day gën a am doole quoi mhm, am na solo. wax nga lépp ah, bu ko defee li aju ci làkk yi li ndax dañu am ay mambo yi nekk ci biir ndax dañu am ay kii. ah waaw jaaxal na ma de. waaw ni ma ko waxee woon sànq maanaam làkk yi da g gis ñoo xamante maanaam nekkul lu Mm-hmm. làkk wi deewul woon euh, lottul mm-hmm. woon jaaxlewul woon lépp a fi woon ama nga li ñu naan làkk ak mbatit culture et la langue n'oublie pas ce sont les utilisateurs ki oublient làkk ak mbatit du ñu fàtte ña koy jëfandikoo ñooy fàtte hmm, da ngay fekk loo jàpp ne wolof amu ko ax ah, lii wolof amu ko fekk wolof am na ko yow yaa gësul yaa ko xoolul hmm, hmm. fekk am na léegi nag bi ñu ko defee nag euh, ku ko dégg dangay gis am mag la woon mi ngi doon nekk Dakar wala mi ngi nekk Europe wala mi ngi nekk feneen mu dégg nag am na mbootaay gu jox ngir wolof fekk moom wolof la nag yàgg na ci àll bi xam na bu baax ni ki man cere mbuum la daan dundee su déggee lool bu gisee mbootaay day xam ne ah ñii gër am na solo bu duggee ci biir nag moo am na ñuy mag yoo xamante ni boo déggoo ñuy wax fii rek dangay tiit sax ah, maanaam lu la jaaxal ci wolof boo leen ko laajee dañ la koy leeral bokk na ci ki ko ki ko jëlee di suñu seexloo moom it man wolof la lool jàgg ci lool xam ko jàng ko it nag man ko nekk ci biir mbootaay gi nga xamante ne lu ñu soxla dañ koy dañ dañ koy am te nag ci côté beneen ci wet geneen gi bu ñu fàtte ne wolof làkk wu yàgg la wu yàgg mhm. ñor tubaab bi ak euh, réew yi réew yi nga xam ne euh, nit ñi nga xam ne ñoo nekkoon Sénégal bi mhm. am na ku mhm. ku ci defoon ab euh, dictionnaire di Pata jaañ amaana it nag ay yeneeni i tubaab ñoo xamante ne ni def nañ sax ay dictionnaire wolof nga xamante ne wolof lay doon ak français ak français ci biir lañ wolof la ñuy tekki ci wolof nga xamante ne ni yooyu yëpp ay sukkandikukaay la ñu ngi yor nañ ko di ci toppaat di ko liggéeyaat bari na ay gàggantikaay ay dictionnaire yoo xamante ne ni ñu ngi ko bañ ko bindee sax ay mille huit cent ay mille neuf cent lañ ko bindoon yàgg na ko bàyyi ko fi mhm. def nañ waaw yàgg na bu baax yàgg lool te loolu ay wolof mhm. lañ fay bind ak i franc di ko leeral j français yeneen waat yi nga wax yu leer yi ni ki ay su lënkaay connexion mooy lënkaay mhm. euh, dal di site wala mhm. waaw site internet njëfekaay di application mhm. yooyu day am waat yu bees léeg-léeg day am donte ah, am na yenn waat yoo xam ne loolu sax loolu sax moo nekkoon sama objectif loolu moo nekkoon objectif beneen question bi ma la bëggoon a poser nii sax parce que dama ko seetlu parce que dama gis ne euh, technologie bi day avancer chaque jour donc comme man voilà spécialement man affaire technologie bi daf mooy intéresser trop tu alors euh, dama gis ne technologie day avancé trop à chaque fois même ci biir technique day am ay mots yu bees yuy génn tu vois des fois nga dégg ñu ne la intelligence artificielle wala ñu ne la cryptomonnaie blockchain tu vois wala robotique yu demee noonu. alors léegi wax ji mooy naka ngeen di def yéen ba mots yu bees yooyu ngeen mën ko di traduire ci wolof. waaw yooyu yu bees yi nga xamante ne wolof xamu ko woon mhm. normal sax euh, làkk yu bari xamuñu ko woon ndax day yees. su boobaa dañoo am ak mbootaay ci biir kippaango ñoo xamante ñoom la ñooy rek ñoom lañ jox wàll woowu ñoom ñoom ñooy ñoom ay malaamiyeen linguistique la ñu def jàng ko du nekkul nag ku jóg rek ñu jox la nga dugg fa dañuy da ngay fekk xam ne jàng na français bu baax ba am ci lijaasa bi kawe wala ku jàng anglais ndax bëri na ñoo xamante ne ñi ngi ci biir kippaango yi ñu ngi ñi ñii ñu ngi Chine ñi ñu ngi France France ñi ñu ngi euh, feneen ak feneen léegi ñooñu nag ku ci nekk sa xam-xam fa mu màcc rek da ngay ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci loolu nag dañuy ñëw ñu daje am nay waat yu yees yoo xam ne làkk yu amuñu kon su dëppoo moo xam dañuy jël baat ba nga xamante ne ne moom la ko way xarale ña koy jëf ña ko moom maam yéen ñi yëngu ci xarale baat bi na ngeen ko tuddee moo xam dañ koy jël daal koy wolofal. ñu hmm. wolofal ko ndax day wax ne euh, bépp langue bu jël baat jël jël euh, jël baat indi ko ci làkkam ba pare cuub ko ci dégg ci ay riiram maanaam ci ay ci ay waxinam su boobaa kooku moo ko moom moomatu ko waaye nag yu yees yi nga xamante ni moom du yu yees su boobaa dañuy dëppoo nekki robotique googu soit ñu jël baat bi robotique indi ko ci wolof. robotique nga xamante ni dañu koy cuube cub waaw cuube ko cubu wolof wala boog ñu wutal ko weneen tur ñu xool robot lan mooy baat bi da nga ci robot robot mooy lan. léegi nag su fekkee robot googu amoon nañu jël baat bi yóbbu ko foofu su fekkee nag baat bu amut lu yees la waaye xarale ko moom baat boobu la ñuy jël di waaye nag nit ñi bu mu tax ñu ne am na yu bari olof amu ko waaye fekk am na ko su yàggee rek olof amoon na ko. Mm-hmm, mm-hmm. ñun noo ko xamul dañ koy gëstu ji nag su boobaa ñu gëstu ji ko xool mag ñi ak bind yi fi nekkoon su fekkee am na ko fi jëfandikoo ñu daal di koy jël indiwaat ko su fekkee nag amul nag yu baat bu bees la nga xamante ne ne suñu maam ya deewoon téeméer at ci ginnaaw ku leen jeewoon tey wax leen ko duñ ko xam. ñu ne kat li baat bu bees su boobaa ñu daal di xool suñu bi ñu dëppoo ba te loolu nag waxtaan wu métti lay doon wu yàgg lay doon nekku dañuy ñëw rek kenn wax dara rek ndax buñ koy buñ koy tuddee nit buñ koy tuddee day faw ñu respecte euh, loj yi maanaam lettre yi ñu koy indi ni ki jollasu moom baat bi dafa amoon mi ngi fi woon ak ndax téléphone yàgg na waaw yeneen boîte yi ci mi ngi fi woon su fekkee ne lu yees la ñu xool nag waaye nekku ne da nga ne robotique rek Mm-hmm. ma daal di xool benn baat rek daal di indi mm-hmm. du demee noonu ay waxtaan lay doon. ay waxtaan xam-xam lay doon ay borom xam-xam yu demee noonu quoi. waaw ñoo fay nekk ba ba génne ko lu ndax làkk yu ñu ci biti di ko xaar day bari. doo génn du nekku nekk loola ngay génne di ko jox nit ñi. neex ngay def quoi alors je pense que loolu aussi am na solo trop ñu xam ko euh, nekkul ne euh, mots yi dañuy jékki rek baat bu ñu bu leen neex rek ngeen. Euh, voilà jox ko benn baat beneen définition tu donc ay waxtaan la ay boroom xam-xam voilà bu fekkee ne moo boo xamante ni mosul am la ci euh, langue wolof wala moo bu bees la euh, ñu jéem a xool nuñ ko cuubee comme ni nga ko wax wolofal ko waa su fekkee ne moo boo xamante ni mun na am aussi luñ ko dàkkantal ci langue wolof bi peut-être ñu def ko noonu ainsi de suite ainsi de suite donc loolu aussi je pense que euh, am na solo trop quoi alors cest dire je sais que defar application bu mel nii techniquement jafe na trop c'est-à-dire parce que dafay bëri ay mbir yu muy laaj cest à am na audio ci biir am na ay texte donc laaj na optimisation alors sëñ Moustapha euh, je sais que xam naa ne comme yéen a defar application bi euh, def ngeen ci ay euh, def ngeen ci peut-être temps bu bari pour jéem a optimiser ko parce que man li ma seetlu mooy application bi dafa am ay audio am ay texte ab yëpp mais terewul application bi dafa gaaw gaaw na exécution application bi gaaw na boo ko wàccee ci sa téléphone boo ko tijjee day gaaw du bloqué du calé du raame du def dara quoi alors li ma bëggoon xam foofu sëñ Moustapha mooy euh, déjà yan technologie ngeen utiliser pour defar application boobu noonu ak aussi euh, naka ngeen def ba réussir loolu yëpp noonu par exemple application bi gaaw te nga xamante ni am na ay ojo ak lépp ci biir. Mm-hmm. Ah, waa xam nga euh, jumtukaay yi maanaam jumtukaay yi nga xam ne nii jumtukaay yu moderne yi a euh, mhm. daanaka boo dee xool ci wàllum informatique am na mhm. euh, domaine buy domaine buy dox la. Mhm. Euh, ndax à chaque fois dana am lu bees loo xam ne ni danañ ko génne maanaam ay technique la li ci ëpp ay algorithme yoo xam ne ni da nga koy gëstu xam ko maanaam li feeg yaa ngi koy gëstu di ko xam rek di ngay ndax à chaque fois domaine bay demee noonu maanaam toujours ñu ngi jéem a xool lan mu lan moo gën a gaaw lan moo gën a efficace. daanaka mënees naa wax ne yooyu lañu yooyu lañu ñu jëfandikoo rek. Euh, waaye loolu it biñ koy bi biñ demee ba ci biir. suñu xel li mu daj tamit mooy euh, maanaam bu fekkee li jum jumtukaay yi ñu utiliser ñun. Mm-hmm. moom la jumtukaay moom la ye moom la yeneen dëkk yi. yeneen mm-hmm. làkk yi ñoom la ñuy utiliser. Mm-hmm. kon xam nga kon loolu euh, am nañ ci accès. am ah, nañ ci accès tiwu na. léegi loolu nag fi mu ne yóbbu nga xalaat naan ana lu tax maanaam ñun amuñu li ñeneen ñi am ndax bu fekkee. lépp loo xam ne nii kat ñoom ñu ngi koy def ñun mën nañ ko ñun mën nañ ko utiliser ndax mm-hmm. yooyu laa utiliser rek maam saxel dana saxel dana da nga wax ak sa bopp daal maam da nga wax wax sa bopp ne am na lu tax mm-hmm. euh, ñun yore nañ am nañ accès ci information yi mm-hmm. euh, te yaatu na méthode yi bëri na yaatu na loolu sax maanaam am na lu tax kat ñun mën nañoo am li nga xam ne nii moom la ñeneen ñi am ok ok foofu la lay yóbbu loolu am na solo trop quoi loolu am na solo alors donc je je sais que aussi euh, euh, fonction déjà am na ay fonctionnalités yu bari yoo xamante ni wax nga ko ne mu ngi am ci biir application bi euh, et ñàkkul ne je pense que aussi liggéey bi jeexagul ñàkkul ne aussi jot ngeen ay feedback maanaam ay ñoo xamante ni wax nañ leen ay yu bari ci application bi neen war nañ ci yokk lii wala war nañ ci changer lii wala yu demee noonu. tu wala sax yéen seen jëm bopp yéen a ngi xalaat pour def ci yeneen euh, yeneen fonctionnalité yu bees comme ni nga ko waxee donc je pense que fii léegi ay temps fii léegi ay euh, ay wala ay weer ci kanam mën nañoo xaar beneen version boo xamante ni bu bees lay doon. waaw moom kay euh, mën nañoo xaar lu lu lu taw féexe sax incha allah ndax xëy na jamono fi mu toll. Mhm. boo xoolee intelligence artificielle day day dox bu baax a baax. te boo xamee boo xamee ni nga koy jëfandikoo rek. Mm-hmm. Ah, dana la dimbali ci lu bëree bëree bëree bëri te boo xoolee ah, lu mel ni ah, maam ñi ngi ciy xalaat lu mel ni xëy bu weesoo conti continue yi nga xam ne nii lu mel ni ay dictionnaire wala bibliothèque yeeg yooyu lu mel ni fi mu ne nii maam nit ki wax maam nit ki wax jëfekaay bi capté li mu wax daal koy bind maam capté ko daal koy bind xam nga loolu fi mu ne nii xëy na man na naa implémentation bi mën nañ koo def rek waaye hmm. application bi ci boppam xëy na ñi koy gis euh, dina leen amal solo lool ndax ki nga xam ne nii mooy liggéey aéroport maanaam bu demee ba xam loolu xëy na moom xelam li muy dem lépp ne ah lii kat su ma su ma ko amoon wala ki nga xam ne nii hôpital la nekk maanaam application yi daal dana dana domaine boo domaine bu mu dem rek maanaam dana fa dana fa trouver ci euh, application ok waa nga xam ne c'est-à-dire imagine nga voyager euh, dem par exemple États-Unis nga am application boo xamante ni su nit ki waxee anglais. mun na ko mm-hmm. traduire en wolof mu wax la ko nga dégg. moom kay du du euh, du anglais kese sax waaye mënees naa wax ne làkk yëpp. làkk yëpp <laughs> làkk ci ma làkk yëpp kay. maa nga xam ne ah. mën ngaa génn. Mm-hmm. Euh, wax say wolof yu leer nañ ndax euh, ñu ñi dal nañu maanaam tukki nañu ay yoon ay yoon yoon ba maa nga te di te li fay nekk lépp. Euh, amuñu kenn koo xam ne nii kat moo ñuy guidé maanaam moo ñu naan def leen nangam wala def leen nangam suñuy jollasu lañu yoroon rek. am ci ab jëfekaay boo xam ne nii dañuy wax ci biir mu jël ko daal di koy traduire chinois. maanaam nga xam ne noonu lañ daan def euh, ba keroog ñu ñibbisee xam nga kon te te jumtukaay yooyu ñun yore nañ ko am nañ accès ci information yooyu. Euh, moo tax phase bii di jëw moom ki li ci topp mbirum intelligence artificielle lay gën a concerné lu mel ni nit ki wax jëfekaay bi capté ko daal di koy bind wala. Euh, nit ki bind euh, jëfikaay bi daal di koy mën a wax ci maam ci euh, mel ni nit kiy wax maa nga xam ne day am baat waaw maa nga xam ne loolu daal mooy mooy. mooy phase bi incha allah loolu ci yegsee dinañ am ay version yoo xamante ni yu am solo lay doon te su boobaa dina gën a tax suñ kàllaama wolof bi nit ñi gën ko respecté parce tey. li ma gën a métti mooy dangay ngay dégg ñu ne voilà nga dem France ñu ne la non par exemple ñu jël suñu musiciens yi ñu ne la non wolof ngay wëy da ngay wëy en wolof moo tax sa musique mënul dem fen tu vois donc nit ñi duñ jëm a def effort peut-être pour jéem a jàng sa langue waaye yow dañuy bëgg yow nga jàngal seen làng ñoom pour mën a dem à l'étranger alors je dis pas que baaxul je dis pas que baaxul mais war na tax aussi ñun ñu gën a respecter suñu langue maanaam olof bi jéem ko gën a jox gërtaam parce que nit boo amee sa benn mbir boo xamante ni euh, bu la bu boo fonk la boo ko fonkul rek keneen du ko mën a fonk donc tey je pense que yéen li ngeen ciy def nii affaire bu am solo la. alors euh, beneen question bi nga xamante ni bëgg naa ko laaj Bachir mooy est application bi war na mën a ubbeeku pour jëriñ euh, touristes yi nga xamante ni par exemple dañuy ñëw biir Sénégal. waaw loolu lu am solo la. Euh, tey defe naa sax euh, sëñ Moustapha leer na ci muy ñëfekaay yi ndax noppeegul ndax euh, xarala yees yi moom day day waaxu jéego yu am solo faaw nga ànd ak moom te it boo yoree dara ci jamono yi léegi yaa ngi ko doon ci yenn ndaje yu yu weesu diglu naa leen nga ne nit ki lu muy def ba ci kii ñaw sax war naa fexe ba ñawam bi mu jëm koo méngale ak àddina mhm. xool ci ñëfekaay yi nu mu ko mën a defee yooyu ñoom seen daal. exactement rawatina nag ci làkk làkk nga xamante ne ni dafa ànd lool ak xarala. dafa ànd ak euh, xar xam-xam yu yees yi kon boo nekkee ne da ngay liggéey ci làkk faaw nga jëm ànd ak ak jumtuwaay yu yees yi su ko defee loolu mu wax ñi ngi ci ñu ngi wax nit ci ay jéego di waxtaan ñii di ak waa Android ak waa Apple nga xamante ne ni jolloso gi maanaam sa téléphone day am làkk làkk wolof soo dëggee ba ci ci ndafar gi ci paramètres soo demee ci làkk yi da ngay fay gis wolof nga daal di bës nga xamante ne sa jolloso gi yëpp lay soppi def ko wolof nga xam boo demee ci message du la bindal message mais da lay bindal bataaxel soo demee mhm. ci réglage ndefar la lay def lu nekk dala koy tekkil ci wolof noo ngi ci ak ay def ay jéego ak ñaari ñaari kuréel yooyu noonu ma ma ma la wax su defee nag ci xam-xam yu yees yi euh, duñu bàyyi mukk lépp loo xamante ne suñu ko defee euh, lakk wi keneen dana si Moussa dana ci mën a jot si Ibrahima dana ci mën a jot keneen koo xam ne du sénégalais wala boog du ab euh, déggul sax wolof da koy day day mën a jàngal boppam day mën a dégg wolof ci ci nga xamante ne du du am benn jafe-jafe Euh, kon daal euh, bépp xalaat wala boog bépp limtuwaay boo xamante ne dañ fa danañ fa jaar ba mbir mi gën a kawe rek danañ danañ ko danañ danañ danañ fa def. danañ fa jaar waaw ah, hmm. pense que je pense que li ngeen ci wax noonu am na solo trop euh, léegi presque nag léegi nag ñu jël tey ñu dem ci jeexitalu épisode bi mais am na laaj boo xamante ni mënu ko ñàkk laaj c'est-à-dire est-ce que tey jii nii application bi nga xamante ni defoon ngeen ko est-ce que sénégalais yu bëri. Euh, seetlu ngeen ne ñu ngi koy utiliser wala su fekkee ne ñu bëri utiliser wuñ ko aussi lan moo nekk blocage bi. Euh, waaw man de ñu ngi koy doon topp ci bi ñu ko njëkkee dugal ci internet mi ngi doon euh, dox bu baax a baax a baax ndax demoon na ba ñi ko wàcce woon bari lool ci ci diggante bu néew ñu ko wàcce bari lool. te it bi ma ko bañ ñëwee ci ci pour nga xamante ci iOS ndax moom ci internet lañ njëkk dox tamit mu ngi mi ngi dox ndax ñi ma doon jàngal ak ñeneen bi ma ko dugalee ci ci kii bi. Mm-hmm. Eh, ci xët eh, Twitter bi ñu bëree bëree bëri wàcce nañu ko te di ko rafetlu ñu ngi koy topp nag di xool eh, ñi koy wàcce waaye daal ba léegi ñi ngi seet na gaa yi ñu ngi koy gën a jëfandikoo léeg nga di ko gis arminat bi nit jël ko capturer ko dugal ko statut yi di di kii mu mel ne daal nit ñi bëgg nañ ko xëy na ku ki ki nga xam ne jëfandikoo mooy xëy na dafa àggul ci moom wala gu ko waaye ñu ngi ko xam ñëpp moom ñu ngi koy jëfandikoo bu baax a baax a baax di ko wàcc seen jolos di ko ci ci jàngantu ak ñoom seen ok mais eh, mais est-ce que yéen a ngi ciy def communication dëgg euh, ci seen kuréel bi pour que nit ñi mën a xam application bi bu baax. waaw ñu ngi ci euh, ñu ngi koy tas ci ci mboolem xat yi ñu am ndax saa su ñu ah. dugalee dara dañ koy dugal ci suuf. Euh, mm-hmm. dugal ko ci ci suuf ci suufu mbind bi. nga xamante ne nii ngir yi fàttali nit ñi ne jafe-jafe gi ba léegi mi ngi am te it léeg nga jël bind yónnee ko mboole koog lëkkalekaay gi maanaam lien bi nga xamante ne fi ngay jaare pour dem ci boutique mën a wàccee jafe-jafe yooyu yëpp ñu ngi koy def ñu ngi koy gën a tas daal ànd nag di gën a liggéey ndax léeg am ku ci jànc ne seen jafekaay gi bu ngeen ci dolli woon li dana baax su ngeen te dindi woon li dina baax yooyu it Moussa mi ngi ciy gën a liggéey di ci gën a di ci gën a euh, dolli ay jéego daal ndax mbir moom du noppi jafekaay yu mag yeeg léeg da ngay gis même WhatsApp dangay ngay jékki-jékki ñu ñu présent ñu proposé une mise à jour mhm. waaw day wane ne ñoom am na luñ ca dolli léegi am na luñ ca dindi waaw rawatina nag suñu mhm. Mhm. Euh, xëy na it boo euh, boo xoolee di nga gis ni Euh, jëmmi jëmmi jëfikaay bi ci boppam maanaam du jël lenn loo xam ne nii ay données personnelles la. te xam nga boo dee loolu bëggoon naa si ñëw parce que loolu aussi seetlu naa ko ci te am solo la. Uh-huh. waaw kay te it xëy na am na am na euh, boo nekkee ci domaine bu mel nii di ci yëngu maanaam danga xam euh, maanaam importance su ki ki nga xam ne nii mooy développé maanaam lu mu hmm. gën a am accès ci yenn information yi rek surtout fi mu ne nii da ngay gis ne sax boo demee ba maanaam ba ñuy dox li jëm ci comme yooyu ma doon. Euh, wax sànq euh, ki intelligence euh, artificielle yooyu nga xam da ngay soxla ay données yu bëree bëri xëy na données ma mbirum données personnelles yooyu xam nga ab ab débat bu yaatoo yaatu daal ci. fu mm-hmm. fi mu toll nii ci jamono ji xëy na loolu tamit lu lu mën naa mën naa xaw a jeexital tuuti ndax xëy na faaw nga xam tamit règlement yi ci aju ak it mën ko mën ko xam noo koy appliquer daal. xam na koy appliqué waaye loolu waaye loolu lépp moom incha allah moom version yi di ñëw incha allah rabbi moom dina moom kii a baax bi waaw ça moom c'est sûr ça hmm. en tout cas en tout cas man application bi euh, man dama ci dama ci dama ci tombé gis ko mais franchement daf may dimbali bu baax a baax te xam naa ni tel que man bi ma commencé def émission bi ba léegi euh, gis naa affaire yu bari yoo xamante ni xalaat naa ne application bu nu mel nii war na ci mën a dimbale Sénégalais yi te gis naa découvrir naa ne aussi ñun ndekete dégguñ wolof tu vois ñun li ñuy wax xaw ma wolof la xaw ma français la xaw ma anglais la xaw ma dara tu vois donc du tey jii nii war nañ gën a mën a respecté waat suñu langue yi gën leen gën leen joxaat gërt ba nga xamante ni keneen ku fi ñëw aussi duñu ko xeebal tu c'est-à-dire fexe aussi ba nga xamante ni moo yëpp day dekk dekkiwaat ba nga xamante ni langue bi bañ a dee parce que suñ demee ba ci euh, ba ci di di ko defee comme ni ñu ko defee nii nii nii ci génération yi di ñëw boo ay tudd langue bi mun na dee donc je pense que tey jeunes yi surtout jeunes yi war nañ mën a télécharger application bi di ci jéem euh, sànni bët à chaque fois di xool yenn mots yi ni ñu koy waxee tu vois pour mun a récupérer waat yenn mots yi avant ñu koy perte tu parce que tey jii di nga gis benn jeune bu wax. bu waxee ba pare doo xam ndax français la wax wala anglais wala dara doo mënoo. mënoo wax ne wala mu wala mu ñëw ne la samay samay wolof dafa leerul. voilà samay wolof dafa mos naa dégg sax ci benn émission télé benn ah. affaire bu ma choqué benn émission télé benn waay mu wax ne xam nga man damay xalaat en français français lay xalaatee. mu ma te mu nekk sénégalais tu vois. donc du yooyu yëpp tey jii nii je pense que buñ gënee delluwaat euh, ci ci ci base bi. dinañu dimbale bu dinañu dimbale bu baax a baax. alors je pense que nag ah. pratiquement. alors dafa am loo ci bëgg yokk sëñ Bachir. waaw ci loolu dafay am lu day am solo sax xam nga laaj yi ak ni nga koy tëdd ni ngay tëddalee waxtaan wi moo tax sax dugg moo ci yoon. waaye njariñal làkk dafa am solo maanaam làkk ci boppam moo xam wolof la moo xam pulaar la moo xam séeréer dafa am solo ci doomaan ndax dañ ne nda làkk ndabal mbatit la maanaam euh, culture dafa mel ne ndab la. dafa mel ak lekkal mais dañ ko def ci làkk maanaam boo jàngee France xam nga kooku li ma mooy laay xalaate parce que loolu lañ ko jàngal su ma la jàngaloo ay pël di la jàngale pël da ngay mujj yow noonu seen xalaat ngeen su ma la jàngalee France jàngale France da ngay mujj yore su ma la jàngalee anglais da ngay mujj mbatitu anglais nga yore mbatitu américain nga yore moo tax ñu ne ne ndabal mbatit la maanaam làkk ci la ñuy def culture bi soo manee làkk bi rek boo boo woyul dara da nga dëgër dara dara ci sa sa sa cosaan rek da jël cosaanu làkk moo tax euh, loolu dañ cee war a góorgóorlu te nag bu ñu wax wolof réew yëpp ñoo yem réew yëpp day am bari ay lakk boo demee Chine bari na lakk ëpp na téeméer làkk yu fi nekk France gi noonu yeneen réew waaye faw ñu jël benn làkk benn làkk bu ca kii nekkul ne nag boo wolof da nga bàyyi yeneen làkk yi déedéet ni ñu def noonu lañ war a soññee yeneen pulaar yi nañ def noonu euh, séeréer yi nañ def noonu jolaay nañ ndax lakk day dund day dee comme doomu aadama soo ko bàyyee rek mu dee boo ko dundalee rek mu daal di daal di dund Mhm. waaw loolu daa bëggoon a suñu dugalaale ci biir rek. alors je pense que donc war nañoo am euh, séeréer teg joolaa teg. joolaa teg <laughs> waaw waaw man dañ teg. man mais gars yi war nañ góorgóorlu ci loolu ah, en tout cas man bu ah. fekkee ne am na gars yu bëgg def loolu man je suis prêt à accompagner leen ci podcast bi et tout ça ah. voilà pour ñu def yeneen yeneen yeneen yeneen langues yi quoi incha allah. <laughs> alors lan moo nekk lan moo nekk seen mot de fin parce que pratiquement agsi nañ ci jeexitalu épisode bi. lan moo nekk seen baat ah, ban message ngeen bëgg lancer <laughs> bépp tey jeune sénégalais boo xamante ni mu ñuy déglu ci importance su langue wolof ak euh, application bi nga xamante ni proposé ngeen ko waaw euh, manum xam naa euh, benn message rek laay lancé te muy hmm. xaw ma xaw ma koo xam ne français lay xalaatee de waaye képp koo xam ne wolof lay xalaatee hmm. ndax bu ndax amul différence entre Euh, xalaat ak wax maanaam nit ki li muy wax amul différence ak ak li muy xalaat ndax li ngay wax ngay xalaat li ngay mhm. li ngay xalaat ngay wax mhm. kon kon loolu amul différence mhm. léegi nag euh, message bi may daal mooy képp koo xam ne nii rek wolof ngay xalaatee moom maanaam instrument bi ngay xalaatee waroo koo sàggane ndax gannaaw gannaaw nit xel la te li ngay xalaat euh, moom ngay wax ken sa wax ni mu ñawee ak ni mu setee daa mënees naa wax ne daal foofu la sa sa sa noonu la sa xel di ñawee rek. Mhm. maam moo tax loolu jarta jarta lu lu jar fonk la daal. lu jar a fonk la ça c'est sûr ça c'est sûr ça c'est sëñ Bachir. lan moo euh, mhm. xam naa li may wax mooy ci ñaari ñaari lay doon. Mm, euh, mhm. sama mbokki wolof yi. mu gën a góorgóorlu ci seen lakk ndax euh, lakk day daa daa taqo ak doomu aadama. soo su la réeree rek. waaw réer nga lépp. ci làkku jàmm rek ngay xala dem bi ca langaam te olof day wax ne ku wàcc sànd ànd boo dem fekk fa borom kon nañ ci gën a góorgóorlu nañ ci jàng fi mu ne amatul lay mbootaay gaa ngi fi loo soxla dañ la koy defaral moo xam da ngay bind téere ba nopp bëgg ñu toppal ko moo xam da ngaa amoon téere bëgg ñu tekki wala bëgg da ngaa bëgg a jàng wolof ak loo bëgg rek mbootaay gaa ngi fi njëfeekaay application baa ngi fi te it nag ñi nga xamante ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllum xarala ñu gën cee góorgóorlu di ci di ci di ci di ci gën a dem seen def seen kem lay kàttan ndax mbir mi mbir mu ci nekk ci doomu aadama lu nekk ci àdduna bi rek doomu aadama war na faa def loxoom ba bu ëllëgee mu bàyyi fa dara ndax dañ ne gillem sax fu mu jaar boo demee da fo fekk ay ay jeexintali tànk kon doomu aadama bu nekkee ci dund mhm. bëgg a dund ba jóge fi war na fee bàyyi loo xamante ne ni bu bu fi jógee keneen ma ñu koy mën a xoole te it bàyyi fi mission boo xam keneen da ko mën a àggal waaye def nekk fi ba jóge fi bàyyi woo fi dara loolu loolu kii te ku nekk bu mu xeeb sa bopp ku ci nekk rek mën na yàlla may na la xam-xam yàlla may na la kàttan xel yàlla yàlla may na la alal xoolal foo mën a jàpp rek na daal ci cay jàpp ci bu ko defee lépp mën a dox ndax suñu mi am bëri nañ ndaw bëri na lépp daal kon nun rek noo ci des buñu xaar kenn ndax lii nii buñ daan xaaru uh, nguur gi ba léegi dooñu xam te gisoo li ñu jàngale ak li ñu teg ci téere bind nañ ay téere yu bare bare bare yoo xam ne ci làkk wolof lañ def tekki nañ ay téere yu bare bare yoo xamante ne ci làkk yeneen la woon waaye dafa am solo ñu daal di koy teg ci wolof xaar xaaruñu kenn xaaruñu xaaruñu nguur xaar xaaruñu dara kon daal doomu aadama yi nañ nañ gën a góorgóorlu seen làkk yi ku ci nekk daal na gën a fonkaat làkkam bañ koo sàggane amul sama yëpp leerul samay wolof leerul samay kii leerul fexeel ba lépp leer. <laughs> ok ok alors je pense que euh, pratiquement agsi nañ ci jeexitalu épisode bi euh, franchement maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax ci seen teewaay ci euh, podcast bi déjà bi ma leen invité rek da ngeen accepté ñëw directement. waxtaan ak ñun ci seen application bi nga xamante ni ngeen ko application bi maa fàttali aussi ne mu ngi disponible ci Android yi mun na mun ngeen ko installer ci aussi ci seen application ci seen téléphone iPhone tu donc mu ngi disponible na fépp gis naa aussi ne am na benn site internet boo xamante ni am ngeen ko boobu euh, aussi site bu mm-hmm. am solo la. jàng jàngoo ko. voilà jàng wolof tu vois alors information yooyu yëpp nag dinañ ko def ci description podcast bi nga xamante ni képp ku déglu émission bi rek boo wàccee tuuti rek ci description bi di nga mën a gis information yooyu yëpp nga mën a dem directement télécharger application bi wala nga dem ci bi xool information yi dinañ joxe aussi contact wu Bachir wala Moustapha kenn si ñoom tu nga xamante ni képp ku bugg am information plus d'information euh, mën nga fa je pense que aussi war ngeen ñu mën a jox sax euh, WhatsApp bi pour que ku bëgg dem ci aussi ci whatsapp bi ci groupe boobu mun fa ñëw aussi contacter leen pour euh, xool naka la mën a def aussi pour gën a yaatal jàngam am bu soobee yàlla bu soobee dinaa la jox lépp. en tout cas maa leen di remercier bu baax euh, leen jox aussi dig dajee di jox dig daje auditeurs yëpp beneen euh, mercredi incha allah dinañ àndaat ak yeneen innovation yoo xamante ni ay sénégalais ñu koy def fii ci fii ci Sénégal incha allah merci beaucoup passez une très bonne journée.